benn Salman ma fa nekk nga xam ne bis bu ngeen xëyee ñu ne Arabie Saoudite def nañ ko réewu layig bu leen dara bett lépp lu xaraamoon ba kenn du ko def ci mag lépp autorisé na ko ñu koy dugal màkk hôtel bu bon ak fecc ak baal ak football ak lépp lu am Amérique fexe nañ ba autorisé ko biir mag boroom xam-xam bu contesté ñu jël la dugal ci kaso bi